ba tey rek dañ koy doo rek ami site internet net bi TV coow la Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek dañ ko daanoon par contumace ndax nag lañ ko doon toppee rek mooy corruption de la jeunesse maanaam daal guerre ca dossier bu ñëwal kii di Adji Sarr te dossier ba doxoon ci digganteem ak Adji Sarr mu nekkoon débat boo xamante ne rek sénégalais yi nag daal doon ci wax jamono ji débat bi nga xamante ne rek moom lañ daal di indi nag moo di ne nag ña ngay sàkku rek ci Ousmane Sonko ñu dugal ko fi nga xamante ne moom mooy ca liste électorale yi ginnaaw nag bi mu amee ndam xamante ne moom mooy agent judiciaire de l' a dugaloon moom itamit ab recours jaale ko ci cour suprême jamono ji nag kii di Ousmane Sonko dafa saisiroon rek cour de justice bu CEDEAO ginnaaw bu mu bësee boobulee dossier jamono ji nag délibération bi ni ki tey nag lañ ko doon a waaye nag dañ kaa daal di rek ba fukki fan ak juróom-ñaar ci novembre ba tey rek ki nga xamante ne nag moom la Seydi Gassama daal xam ne rek moom nag dafa gis ne affaire bu nu mel nag coutumance nag la ñu attee kii Ousmane Sonko ca coola doxoon ca diggante mag Adji Sarr waaye mbir mu nu mel nekkul lu doy rek pour nag ñu daal di koy xeñ lii di àq ak yelleefam ndax nag ñëpp gis nañ rek te ku gëm yàlla dëgg rek xam ne affaire bu nu mel nag affaire privé la ndax jamono ji nag dañ ko jël considéré ko comme ab acharnement maanaam daal état bu Sénégal dafay utiliser li nga xamante ne rek moom mooy ay dooleem ngir éliminer bu baax kii di Ousmane Sonko ngir mu bañ a bokk ci jongante présidentielle ñu dënmal ndax kii di Ousmane Sonko bu ñu fàttalikoo nag bi moo nekk parti bi di Pastef te ñu nasaxal ko mu nekk fa leader bu mag nekk dirigeant bi moom nag dafa présenté woon ci élection présidentielle yi ñu génn ci atum 2019 waaye nag résultat yu am solo yi nga xamante ne rek defoon na ko waral nag mu wax ne moom candidat la ci élection présidentielle yi ñu dët ma ci atum 2024 waaye mbir mu nu mel nag dafa mel ni rek état bu Sénégal yombalul ko ko di kàddu kii di Seydi Gassama du ñàkk dinañ ci ñawaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu